nga classé tey bu subaa nga déclassé comme si dafa amul lu yëkkati woon classement boobu hmm. euh, maa ngi dégg ngeen utiliser terme écosystème sànq ba léegi on est dans un écosystème mooy dafa am benn millier de vie bu ñu nekk ay être vivant nekk fi hmm. fii ak mi ngi nekk milieu de vie maanaam dëkk bu nit mën a dundee être vivant yi di continuer di fi nekk hmm. heure bu noppee nekk milieu de vie être vivant yi dem seen yoon ñun bi ñuy dikk ci àdduna bi dañ fee fekk ak gàncax ànd ak moom buñ yaakaar mukk ni ñun dañoo moom àdduna bi gàncax gi bokk fi day moom noonu de gàncax gi dafa am part ñun fi am part ñu am loolu bu am solo bu muy joué ci équilibre écosystème bi moom gàncax gi ci boppam muy bu gudd nag ñuy dox di dox bu mujj ñu gis ne dafa mel ni dëkk yu bari gàncax amatu fa désertification totale waaye la fa am mooy ay nit képp ñoo fa nekk dëkk dindi gàncax gi bàyyi leen fa ñoom mu am ay conséquences doy waat suy dund nag mën naa ne lu bari ci li ñuy dund tey jii ba ci li fi indi sax bu la neexee li ñu bëgg a ñëw tey muy Covid bi génnewuñ ko ci ndax environnement bi soppeeku gi muy soppeeku mooy daq yenn être yi di indi yeneen yi conditions yi day favorable pour ñi bàyyi ñeneen ñi gis nga dëkk urbanisation moo koy defar ànd ak aménagement muy am ay espace vert mm-hmm. espace yoo xam ne espace de jeu la nit ñi tamit nag gis ngeen Sénégal cent quatre vingt seize mille sept cent douze kilomètres carrés mm. li ñu li ñu gis nga li li mm. nga xam ne mooy mooy li ñu toog ñun matul dix pour cent mm. nga jëm Thiès li ngay romb ci àll dëkk boo génn jëm beneen bi ñaata ngay romb comme pourcentage pour te dire nekkuñu benn yoon dans l'obligation dëkk ci ay forêt classée forêt classée yi mooy dañu am ay espèces en voie de disparition ay plantes yoo xam ne yii de am nañ fi njariñ lool te buñ leen seetaan dañuy dem ñu ne partie bii nañ ko classé te forêt classée dafa war a am suivi. mooy lan dañ koy aar mais dañ koy suqali. comme ni ko euh, Pape Djibi waxee sànq dafa am ñu koy entretenir. des agents de jour de forêt. yoo ñëw di xool espèce yi a soxla di leen fa dolli boo demee université Cheikh Anta Diop bi dañ koy di ko entretenir espèce yu bëri tey ñuy soxla suñu étude ginnaaw yàlla moo tax ñu koy am. waa léegi bu demee ba jamono di dox forêt yooyu di gën di daar ngay war di ko gën di yokk nga ne da koy koy déclasser dans quel but. ak dégg nga dégg nga sànq li ñu signalé ne am na ñoo xam ne bu ñu déggee ne. ñu ngi koy bëgg a déclasser dañu di problème. Mhm. réchauffement climatique toll jamono ji ñu toll nii. fi nit ñi toll ci taux de CO2 bi ñu koy yokkee. nga xam ne tey régulateur biñ ci gën a yaakaar tey jii du dara lu dul la forêt. Mhm. et les océans. Mhm. entretenir les eaux entretenir ce qu'on appelle les végétaux loolu képp tey moo ñu mën a delluwaat suñu wér. ñu toll foofu tey ñu mel ne dañuy jékki-jékki naan forêt daal dañuy classé tey bu ëllëgee ñu déclassé. comme si moom tekkeetul dara. loolu borom décret yi rek ko mën. loolu nag mbir la moo xam ne. loolu mbir la classé déclassé moom borom la moo xam ne. Mm. Euh, li mu wax nii c'est très sensible nga gis nit ku dëkk ñi di ko. tojal wala nangam. loolu ñun ñëpp gis nañ vidéo yi ni mu méttee. Mm-hmm. waaye gis nga état. Mm. wala njiit dañuy jàngal seen doomi réew. nit dañ koy jàngal mu xam mooy kan. Mm-hmm. lu mu gis lu ne. mu xam lu muy tekki. lan mooy ordure lan mooy espace public. lan la végétation di tekki gis nga même ci diine l'islam sax xobu garab ci boppam. amoo droit dagg ko lu dul dafa am njëriñ. Hmm. léegi nag. loo ah léegi léegi boo leen dajee xaalis boo. léegi nag loolu moo tax léegi li ma bëgg a yokk ci loolu. professeur mooy. mooy maanaam may gel boobu waay. mooy xam nga xam nga xam nga